bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa saxaabatihi algurri almayamin wa ala xayri xadimihi dil xabli almatin wa ala man iqtafa athaarahum ila yawmi ddin mbokk julli di asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw bi nu sante son borom subhaanahu wa taala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal asheykhul xadim noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara deen ndokkeel ci weeru tedd wi nga xam ne tàbbi nañu ci biiram di cheikh ramadan al mubarak di weeru màgg weeru tedd weeru barkeel weeru bari loolu ay ngëneel weer woo xam ne weeru profité la njëkkante jëf lu baax ngir ne promotion la ci yiwu ab jullit kon noo ngi ci ndokkeel ñépp di ñaan sun bam nii nu ci duggee yàlla kàttanal nu ba nu man koo joox ba matal ko ci wii rek ci kàttan te mbas mi fi nekk sun bam jëli ko fi jeexal ko tàkk eh, tey lépp lu ñu ci jëf sun bam nangul nu ko te fulal nu ko ñaanal si Ahmadu Muntaxa mi fi nekk Sëriñ Tuubaa sun bam yàggal ko fi lool te wéral ko lool ba mu àggale mbooleem ay naalam ak yéeneem ci liggéey sëñ Tuubaa ci dëkk beeg yoon weeg diine ji di ko ñaanal njabootu sëñ Tuubaa gépp waaye di ko ñaanal lit suñ bopp nun taalibe sëñ Tuubaa yëpp jigéen jotaay boo xam ne euh, jotaay bi ñu tuddee xurratu bi ñu tuddee fardul ayni fardul ayni def naa baat bi rek tur yi dana tegtale kon wet gi mu a jëm fam farata yoo xam ne sunu borom daf koo gàll ci mboolem jullit ñi tey farata yoo xam ne kenn mënu cee wutu kenn ku ne yaa ko defee sa bopp ni julli ware nga xam ne kenn kon la war ci sa bopp kenn mënu la cee wut defal la ko koor kenn mënu la cee wut defal la ko boo yore janaba kenn mënu laa sangul yooyu nga xam ne faratay jëmm la ju yàlla gàllu jullit bu nekk loolu jullit bu nekk war na koo xam te Sëriñ Tuubaa sax ci bi muy lim ponk yi nga xam ne mooy ponk ponki taalibe bi dëgg dëgg li tax doon murid saadix da ca limaale xam lu say farate jëmm ne ba ca ñetteel moom la saalisuha taallumul furuudi al mutaayina bi tafridi kon émission bi nga xam ne diiru koor gi lay doon ci lool lay jëm muy faratey jëmm gannaaw ci koor la nekk na kon dañ koy tàmbalee rek ci jëmmi koor ci boppam lañ ca war a xam koor ñu xam ne mooy ñeenteelu ponkub lislaam suñ waxee ponk ci diine mooy loo xam ne su fa jógee jëf ji yàqu maanaam am mbaar jën yee ko téye soo dindee jën ya mbaar ma daanu jën yee ko yanu nag loolu la ñu tuddee ay ponk lislaam nag juróomi ponk la am ponk ñeenteel ba nag mooy woor weeru koor bu islaam ala xams shahaadati an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaat wa itaa zakat wa sawmi ramadan mujje wa xajji bayt la wa bayt li ma satan juróomi kenn yooyu ñoo ñoo yoon lislaam ba ci njëkk mooy gëm yàlla mooy gën seere na yàlla rek ay buur gannaaw boo gëmee ci sa xol seere ko ci saw làmmiñ mooy ba ci njëkk su jàllee jëf ji koy tegtale te boo ci njëkk mooy taxawal julli juróom di ñaareel ba joxe asaka ci boo amee nisaab mooy ñetteel bi ñeenteel ba nag mooy mooy woor weeru koor weeru koor woowu nag euh, kon dana aaj ñu xam lan mooy woor ci boppam lan mooy woor jullit war naa xam lan mooy koor su fekkee ni la te pose les questions ne lan mooy koor war nga ko mën tontu war nga mën tontu lu leer ak itam koor kan la war gannaaw bu nekkee warugar ba noppi kan la war warees naa xamit lan mooy ay farataam warees naa xam lan mooy ay sunnaam warees naa xam yan lañ ca sopp warees naa xam yan moo ko yàq warees naa xam yan lañ ca sib warees naa yan lañ ca nangu warees naa xamit ay ngàntam ak fay fayak kafaara muy fukki yëf ak benn walla ñaar yoo xam ne bu ci nag jullit buñ bett laaj la ko war nga ko mën a tontu suñ ne lan mooy koor su ma la bëggoon tënkal koor ci benn baat mooy dama lay wax ne mooy nga bàyyi mboolem bànneexi biir ak bànneexi pëy li ko dale fenku fajar ba jant soo te yéene ci ak jaamu yàlla ci ci gàttal loolu mooy koor bàyyi mboolem bànneexi biir yi ak bànneexi pëy yi li dali fenk ko fajar ba ca jan ba jant soo te yéene ci jàmm yàlla xam nga fekkoon da ngaa bàyyi yooyu yëpp te yéenoo ci jàmm yàlla doo ci ma yéenoo ci dara doo ci jëlee dara moo tax yéene mooy li ëpp soo ci jëf mooy da ngay bàyyi ba noppi yéene ci ak jàmm yàlla subaa loolu mooy koor ci tënk bu gàtt eh, léegi nag kañ lay war ak kan la war kañ lay war mooy saa bu demee ba wér ne weer wi feeñ na benn nga gis ko mbaa ñu gisal la ko gis gu wér war na ci mu kàllaf mu war weer ko saa bu wéree ne weer wi feeñ na ndax li suñ borom wax ne fa man shahida minkumu shahra fal yasum képp ci yéen ko gis weer wi na ko wor ku ko gis nag gis ga ak ñu gisal la ko benn la gisal la ko gis gu wér waaye képp ko xam gis na weer wi ci tey mu kàllaf war na ci moom mu yéene koor ba noppi xamle ko xamle ne gis na weer wi war na koo xamal kilifa gi joxe ndigal war na koo xamal nit ña war a woor yégle ko su fekkee ne ko day waaju baax ki ko gis day waaju baax ku ñëpp seere ak baaxam su ne gis naa weer ci sama ñaari bët war na ci kilifa gi mu dëggal ko nit ñi dëggal ko ànd ak moom woor su fekkee dafa am benn illa bu tax nag kilifa ga dëggalu ko ci misaal seel nañ ci moom ñàkk maandu walla yu mel noonu kon sañ nañ ko ñàkk dëggal waaye boo kenn du ci sukkandiku waaye moom mi ko gis nag moom waru gar la ci moom woor moom mi ko gis moom li fekk wér nañ gis na ko moom daa war a woor donte nit ñi dëggaluñ ko te xam nañ li ñu tudd achehrul xamar yi achehrul xamar yi ma ñu ko eh, waxe ni ñuy waxee mooy weer wolof léeg-léeg mu doon ñaar fukk ak léegi mu doon fan weeri fan gannaaw saxut fenn kon warugar la ci jullit ñëpp ñu def yitte ci seen dug weer warugar la ci seen dug weer weer wu nekk saa su amee ñaar fukki fan juróom-ñeent ñëpp war nañoo maase ci seentu weer wi am na ñun dañuy toog rek ba ba ca kanam ñu ñu wat woote laajte ba xam weer wi toll nga xam ñoom duñ ko séentu waaye ñëpp ko war a séentu te def yitte ci séentu ga itam su fekkee gis nañ ko alhamdulilah suñ ko gisul neen ñu matal fan weer weer wa ñu nekk ni yonent yonent saas dafa waxoon ne suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata sha'bana thalathina yawma dee woor ci gisug weer tey woor yi ci gisug weer saa bu ngeen nag asamaan si dafa niir dafa niir ne bu feeñut de bu fekkee dafa niir ba gis leen ko matal leen shahbaan fanweeri fan shahbaan lu tuwaay weneen weer mu mën a bu fekkee nag ko séntu séntu bu njëkk gisoo ko da ngay matal weer woo fanweeri fan waaye nag ñaari góor yu maandu fu ñu ko gisee rek wala génn góor ak ñaari jigéen subaa waris na caa sukkandiku su fekkee ñu maandu lañ sukkandiku ci loolu ngir woor moo xam mu weeru koor moo xam muy weeru koor yi loolu la boroom xam-xam yépp wala lee lépp ci borom xam-xam wax ana kan la koor war nag kan la war ba ci njëkk mooy ab julit muy benn ñaareel ba mooy mu jot gént mooy mu majeur te mat mu kallaf ñetteel ba mooy mu doon ko xellu mooy ko ànd akom xelam ànd ak sagoom ba ko ñeenteel mooy mu am kàttan ga mooy am na kàttan woor wéere diwut wéere di koy gàllankoor su dee jigéen nekkul ci jamonoy reegal ba mu tee ko woor ba ca topp mooy mu jot ci wooteeb lislaam maanaam wooteeb lislaam agsi ci mooy yëg na ne am na diine ju tuddi lislaam ñeent yi mooy daje nit ki koor door ko war su ne kam yi war mooy ab julit kon dañ ci dégg kon ku ab julit muy ab yéefar koor wëru ko su wooroon it soo at fekk dafa ànd ak julli ñu war it koor gi du wér ndax sart bu mooy day gëm yàlla ba noppi di jullit su nee na jot gént mooy amum xel euh, mana maanaam mesure dañ ci dégg mooy wërul gone waaye teewut gone na soo waree koor gi dana wér ndax da tàmm nañ lool mu di ko tàmbali jéem ca ba mu ko wëragut ngir ay cëram tàmm ko ba saa su demee ba jot gént ba mat mu kàllaf fekk mu tàmm ko ba man ko man ko wéyal su ne na amum xel nga dégg ci ne kon warut ab dof ki anutum xelam su fekkee ab dof la ci misaal koor waru ko su wooree koor ga du wér ki tàggoo sagom ci leneen it te fekk la ko tàggal sagom tegu ko boppam tegu ko boppam subaat loola koor da koy wàcc misaal dafa xëm dafa kiris maanaam wala lu meloon waaye ki naan sàngara wala mu tuxu ba màndi kooka la la ko tàggal sagam moo ko teg boppam kon teggilu ko koor mooy ci jamono ji su waree koor gu du wér waaye am na bàkkaar bu rëy rëy rëy naa fay koor ga war naa kafaar yi teg ca door na seet nu muy tuubi digg ma boromam suñ ne it na ko man mooy dañ ci dégg woon ku wérut ku wérut ba mënu ko koor wëru ko te joo jamono ni ko noonu ki nga xam ne buñ ne itam na jot eh, ki nga xam ne dafa am ngàntal ma jigéen ji gis baax gis reegal wala derite am doom muy meret kook it jamono jooju koor da koy wàcc waaye ku ci nekk day fay nag bu jàlle bu koor ga jàllee na jot ci woote lislaam mooy na fekk yéeg na ne am na diini ci tudd lislaam yan dund na ba faatu yëgul ne lislaam am na kook yàlla du ko topp dara ndax suñu boo moo ne wa ma kunna mu'addibina hatta nab'atha rasula bala maa mbugal kenn nday fekk ma yebal ci sama ndaw ba mu wax ko li ma bëgg li ma bañ ma noppi su fekkee lenn ndaw lislaam mu sëyee ci yow ma xamoon ne am na diine ci du lislaam gëstoo xamoo ci dara yëgoo ko kooka lislaam du ko topp dara kon ñooñi ma tudd ku ci nekk koor dafa su fekkee ngante daje na koor nag ñaata ponk la maanaam ñaata farata am koor am na ñaari farata farata bu njëkk bi mooy yéene yéene ba ko ñaareel mooy téye sa bopp ci lépp luy waral dog waaye lépp lu yàq koor lépp lu koy dog moo xam lu dagal la moo xam lu dëgganul la nga nga nga nga téye sa bopp mooy bañ ko def li ñu loolu tuddi jàpp jàpp mooy bàyyi xam nga jàpp am na jàpp guy tudd téye waaye suñu lay jàpp ci koor nag mooy téye sa bopp mooy téye sa bopp ci nangam nga xam ne doo ko laal daal doo ko jege bisu lëm nag li ko lay fenk fajar ba ci sow ak jant ndax li suñu borom ne wa kulu washrabu xataa yatabayyana lakum alxaytu labyadu min alxayti laswadi min alfajri summa atimu siyaama ila layli na ngeen lekk te naan ba kero leeru bëccëg bi di feeñ ci lëndama guddi gi xam nga baatu xayt am na ñu koy ak ñu koy tuddee wëñ am na ñoo xam dañuy wax ne da boo demee ba xam boole ñaari wëñ gu ñuul ak gu weex xàmmee leen rek mooy loolu waaye ci wëñ yooyu lim jublu ci wëñ gu weex gi mooy leeraayu bëccëg bi lim julli ci wëñ gu ñuul gi mooy lëndamaayu guddi gi mooy seen ba nga xam daal mi ngi fajar a ngi jot rek xam ne yaa ngi tàmbali xàmmee leeru bëccëg gi ci lëndama guddi gi soo faa na ngeen bàyyi lekk loolu nag koy jamono ju njëkk la boobu montre amagut waaye bu ñu ba montre am nag léegi kon loolu day dàqu kon léegi ci montre la ñuy tegtalu am na calendrier ñu def man mii at mu jot naa def calendrier boo xam ne dana dana xam li waxtu jàpp waxtu dog ko may sa sukkandiku ci loolu ci montre yi waaye dootu fa nekk di génn di xool leeraay bi ca bi yëpp ndax loolu mën nga caa juum kon loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy bi ci njëkk kon su ne yéene kon ñaari ñaari fate mu fi mooy yéene ak bàyyi luy dog yéene nag xam nañ ne farata la ci julli yéene farata ci asaka yéene farata ci koor yéene farata ci xaj jépp jëfi jaam yàlla goo mën a gis yéene farata la ca soo ko ca bàyyee jëf ja yàqu sooy jàpp te yéene woo njàpp ma baaxut sooy julli te yéene woo julli ga baaxut jëf jooy jëf te yéenewoo woo ci jëf ji du baax kon yéene farata la ci jaamu yàlla gom mën a doon gépp ko xam ne jaam bi dana ci jaamu borom subhanahu wa taala yéene farata la ci tey xam nañ ci barab yu baree bari ci téere yi ne yéene mooy alxasdu almuqaaran lil jublu gi mooy li la tax di jëf jublu jublu gi nga jublu ci sa xol muy julloo xam ne dafay lëkkaloo ak jëf ja dafay jëg li ko jëf ji nga xam ne moom ngay teew teewle ci sa xol waaye dañu lëkkaloo mu bachar mooy yéene jëg ji dañu dañu dañu dañu lëkkaloo mu bachar mooy dañu dañu dañu sësaloo nga xam ne yaa ngi yéene ca ponk ba njëkk ca ponk jàmm yàlla nga ngay def ci misaal bu dee njàpp xam nga sël sëlmu mooy farata bi jiitu ci njàpp moo tax booy sëlmu foofu nga yéene bu dee sangu fa ngay xubbi ko fa ngay fa fa ci ca la kon foofu nga yéene benn genn jaam yàlla gu mën a doon noonu la ba mu des koor nag koor mooy jaam yàlla goo xam ne yéene jëg jëf ji mën nañoo ma ji bu dee càng càng bu dee bu dee njàpp yéene jëg jëf ji dañuy jokkaloo su dee jullit yéene ja kabar xarmal dañuy àndaloo dañuy dañuy lëkkaloo waaye koor rek mooy jëf joo xam ne yéene jaag jëf ji mën nañoo bañ a lëkkaloo su fekkee dañu séntu weer gis ko ñu ne suba la koor mën ngaa daal di fa nga toll xam nga wóoragoo ndax fajal la koor gi tàmbali waaye mën ngaa daal di yéene foofa te yéene ji dana wér kon sàttuñ ca yéene ji nekk mubaashara ak jëf ji ak koor gi kon dagan na nga jiital ko ndax waxtu yéene lépp mooy mooy guddi gi lépp képp ku yéene gannaaw bu jant bi euh, sowee ci bis bi mujj ci saabaan rek mooy bis mujj ci baraxlu su jant soyee rek man nga daal di yéene jénn yéen fas naa yéene woor weer wi jénn yéen jooju dana doy ci weer wi yëpp li fekk dogoo nag waaw saa su dee ba ngant dab la nga dog ci koor gi nag sooy tàmbalaat faaw da ngay yéene waat waaye su fekkente nag dogo benn yoon ba koor gi jeex yéene ja nga jënoon ci guddi gu njëkk ba tey mooy continuer jëfi xol la daf bokk ci xol yi nit ki mën naa bañ yéen xëdd rek xëdd xëdd ba tey mën naa wutu yéene su fekkee yéene wa dara waaye ci guddi njël jot nga xëdd rek mooy kii xëdd dafa dafa dafa nar a woor kon kon xëdd man naa wootu yéene ci dëppoog mboolem borom xam-xam yi waaye su dee ci ngir mi sukkandiku mu ngirum malik yi nag dañ ci sart eh, yéene ji jiitu fajar ci gépp koor gu mën a doon moo xam kooru farata la moo xam kooru nafila la faaw nga yéene lu jiitu fajar ñu tegtaloo ci xadis boo xam ne ahmad ak ibnu xabbaan ñoo ko solo eh, jële ci soxna xafsa mu ne yonente bi saa sa neewoon na man lam yajma siyaama xabla fajar falaa siyaama la ku yéenewul li jiitu fajar soo ko waree koor gi wérut su waree koor gi wérut maaliki yit dañ tey dañuy dañuy dañuy dañ koy waral kon ci guddi gu njëkk gi fanaanoo ko guddi gu nekk waaye nag gu nekk nga yéene yéene yéene ju bees nag dañ ko sopp rek ci ngir boo ko def te koor ga dana wér mooy nga yéene yéene jénn yéene ci guddi gu njëkk gi teewul nag bis bu nekk balaa bët seen nga yéene waat yéene ju bees ca bis ba ca topp loolu lañ ko sopp rek waaye soo ko defut yéene ju njëkk ji la doy walif koor gi li fekk doog amut nag ndax dañ ko layale ne weer yi dafa nekk ibaada muttaxida maanaam donte bis yu teqale mooy dafa genn jaamu yàlla la genn jaamu yàlla kon jenn jëf la moo tax jenn yéene kon dana ca doy masal mën a mën a xasaat yu bare bare bare am na ci borom xam-xam yi <coughs> werante yu bari ak coow yu bari Euh, maliki yi kon yenn yeesal kon waral nañ ba tey yeesal yenn yi kon ci ko dog kooram ngir ngànt daa wéri di woon tax mu dog wala mu tukki ba tax mu dog walla jigéen ji gis baax ba tax mu dog suy tàmbaliwaat maanaam su loola jaxe mooy tàmbaliwaat faaw day yéenewaat yéene ju njëkk ja dootu ko doy kon faaw mu yéene yéene ju bees door cee sësale koor gi kon loolu mooy yéene ponk ñaari ba tam mooy bàyyi mboolem luy dog koor mooy nga téye sabab ci mboolem luy dog tegtala mooy aay ji ma jàngoon léegi ukkuloo wasra boo jë su noonu lekk leen naan leen ba kero lëndëmug fajar gi di feeñ ci lëndëmug guddi gi kon jàpp ci ni ko aay ji leerale kon mi ngi tàmbale ci waxtu fenkook fajar ba keroog ngay tàbbi ci xaaj bu bu néew ci leneen gi mooy mooy timis gi rek war na ci jullit bi kon muy fukk lu fenkook fajar ba tax saa su demee bañ na jàpp juróom minute jees nga bàyyi lekk naan ngir ngir léemtu ngir lu gën a wóor su ne juróom minute jees nga bàyyi su jant bi sooyee it ba noddukat yi tàmbalee noddu nga xam ne dog jan na nga daal di dog waaye teele gën a moo ci gën maanaam fu foo yégéen dog jot na rek ca saasa nga daal di dog bañ koo yeex teere gi sunna la dañ ko daal ci kanam kon yooyu ñaar mooy faratay koor muy yéene ak bàyyi lépp li dog ak indi naa itam sàrt yi ca aju ba ca topp mooy sunnay koor <coughs> soo am soo am nay sunna am nay mustahabaat mooy yu ñu sopp <coughs> am nay teggi nit yoo xam ne day yàlla day jaadu ci kii woor mu sàmmanteeg ñoom bokk na cooy ba ci njëkk mooy xëdd xëdd sunna la sunna la su am solo buxaari yu ak muslim ku ci nekk solo na jële ci anas ibnu malik radiallahu anhum mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne tasaxaru fa inna fi suxuuri baraka dee leen xëdd ndax xëdd kat barke ngi ci jële ci miqdaam bu ma amaat moo jële ci went bi saa sam wax ne aleykum bi haada suxuur fa innahu huwa alxidaau almubaarak rawaahu nasaiyu bi sanadin jayyid nee na yun saa su nee na maa ngi leen di dénk ngeen di xëdd ndax xëddkat ñam la wu barkeel maanaam barke boobu mooy dafay dëgëral aji woor ji ba mën a jokkale kooram ba jant da koy sawarloo it te da koy def mu am kàttanug mën a man man ko booleeg jëf liggéey ca farlu ak cawarte tax du tàyyal comme ni docteur yi waxee ndékki ni mu amee njariñ ci nit eh, xëdd at eh, atte moo tax ndax ndax dafay dafay sawarloo it appareil bi nga xam ne mooy reesal ñam wi da koy sawarloo da koy teyit mu ñàkk ci deret lu bari yu mel noonu maanaam muy manqué deret moo tax ñuy sopp yeexe ko ba ci mujj guddi gi ma di ko yeexe ba fajar saxaaba yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ ko daa yeexe ba nga xam ne des ci fenku fajar jàng juróom fukki aaya moo fi xaj ñu bàyyi nag lekk ak naan ñu dog ñu jàpp bu am suñ ko ci solo na xadis boobu jël na ci Zayd ibnu Saabit radiyallahu anhu mu ne tasaxarna maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam summa summa xumna ila solaati qultu kam kaana xadra ma baynahuma xaala xamsina aaya rawaahu albuxaari yu muslim nan dañoo xëddandoo ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam biñ xëddee ba ñu daal jug nag jëm ci jàkka ja biñ jógee dem julli ma laaj ko ne ko lu tax suñu digganteeg julli mu ne ma jàng juróom fukki aaya xëdd nag suñ ko waxee ndaw ko ndaa day jàpp ne kon may rek lekk lekk ba sa biir na daal déedéet xëdd moom donte benn tibu ñam la taxawoon taxawaayu xëdd donte dogu mburu la donte kopp kaasu meew la donte benn goxu ndox la sa taxawoon taxawaayu xëdd xam nga dégg-dégg ñuy wax ne ñun ko xam man mënu waa xëdd dëgg la am na ñoo xam ne mënuñoo lekk waxtu woowu waaye waaye nag def ko am na solo donte góoxa ndox la def ko ngir ngir yéene ci xëdd ndax xëdd ndax li jëm la sëñ Tuubaa it am dana fa koy wax tasaxaru fa inna fi soxoori barakatan taxmi anil madhuri loolu waxi sëñ Tuubaa la deen deen xëdd ndax xëddkat barkee nga ca ahmad solon eh, solon jële ci ahmad ahmad solon jële ci abi saidin xudri yi radiyallahu anhu am ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na as-suxuuru walaw ay yara walaw ay yajra ahadukum jur'ata ma'in fa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin eh, loolu na lu am solo la saa su dafa ne dee leen xëdd ndax xëddkat barke la bu leen ko bàyyi mukk donte kenn ci yéen day góog góoxu ndox sax daan na yàlla ak i malaakaam dañuy julli ci xëddkat yi loolu de kon jënd xëdd yàlla dañuy julli ci xëddkat yi julli yàlla nag mooy muy muy jagleel la yërmandeem jullig yàlla ci jaamam mooy mu yërëm ko jullig malaaka ci jaam ñi mooy ñu di ko ñaanal ak di ko jéggalul yàlla te suñu boom delloo ñaanu malaaka kon loolu am na solo kon luy tegtale luy wane kon mm, nekkoon kon lu am solo kon ñëw nañ kon benn kon ci benn ci sunna yi incha allah jotaay ba ca toppaat nag dañ indi nag la ca toppaat ci sunna yi julli kon dañu ci rubrique bi nga xam ne mooy ñaanuk bis bi ñaanu bis bi tey am na baat yoo xam ne koo xam ne saxal nga ko wax bis bu set incha allah ñaar juróom-ñaar yoon ci suba gi juróom-ñaar ci ngoon gi incha allah lépp luy xeeti wéri di xeeti njabar xeeti bët bu aay ak eh, làmmiñ ak cat ak yooyu yëpp incha allah sunu ba mën na la ci musal soo ko saxalee muy bismillahi xayril asmaa'i bismillahi rabbil ardi wassamaa'i bismillahi barakatun wa shifa bismillahi allati laa yadurru ma asmi shay'in fil ardi wala fi sama wa huwa samiul alim ma baamu ko bismillahi xayril asmaa'i bismillahi rabbil ardi wassamaa'i bismillahi barakatun wa shifaa'un bismillahi alladi laa yadurru ma asmi shay'un fi l ardi wala fi sama wa huwa samiul alim ma dellu ko baamu bismillahi xayril asmaai bismillahi rabbil ardi was samaai bismillahi barakatun wa shifaa bismillahi alladi laa yadurru ma asmi shay'un fi l ardi wala fi sama wa huwa samiul alim yooyu ku ko saxal saa boo xëyee juróom-ñaari yoon su nga ne juróom-ñaari yoon wér di gu bon gii ñu dégg incha allah suñu ba mën na la cee musal ak yenn wér di gu bët bu aay ak lu mel ni lu mel ni njabar ak lépp li lor rek incha allah suñu ba mën na la cee musal li ñu jeexle mooy xadiisu bis bi jël nañ ci abi hurayra radiallahu anhu mu jëli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam astafala salman salman salman moo solo boobu salman salman la mu jëlee ci yonent saas moo huwa shahrun awaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa axiruhu min annaar rawaahu ibnu xuzaymata xadis boobu dafay wane ngëneelal koor màgg gu màgg ci lu mën a jural jullit ndax dafa ne koor njalbeen gi muy fukki fan yu njëkk yi soo waree bis bu njëkk ba ca fukkeel ba fukkeelu bis ba nga war ko na la woon ne am nga yërmande suñ borom suñ borom ndax ndax ne ñett fukki fan yooyu yërmande la nga war fukki fan yi ci digg mooy li dali fukki benn ba ci ñaar fukkeel ba soo ko waree mu wóor leen am nga njëggal suñ borom ndax nee nañ fukki fan yooyu njéggalug yàlla la soo waree fukki fan yu mujj yi mooy li dal ñaar fukk ak benn ba weer yu feeñ mu wóor mucc nga ci sawara ndax ne fukki fan yooyu gore la ci sawara nee na weer la woo xam ne kon njëlbéen gi yërmande la muy fukki fan yu njëkk yi digg bi muy fukki fan yi ci digg bi njéggalug yàlla la fukki fan yi mujj yi njéggalu mooy gore la ci sawara mooy mucc nga ci sawara ibnu xusey moo ko solo kon day wan ne kon xaj koor nga kon lu am nga neel lu mag la kon ñu dog jox leen dégg daj incha suba ci waxtu yi ñaan su ma defoon dégg ak topp li gënt ñu yàlla suñu doon defal dëppali ko leen gënal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.